mbokk yi ngi ci le grand combat drapeau madame Aïda Mbodj maire Bambey nekk député réew mi nekk ancienne ministre madame Aïda Mbodj diggante moom ak Assane Ndiaye lu yàgg la te lu yàlla lu yàgg dëgg la mu dem ba 15e tey ñaar ñii di ko bëre Feugeula Lansar ngeen lu xonk moo ñu wan ginnaaw day jël avertissement dafa am lu mu tuur adversaire am mi ngi jugee Lansar Feugeula jóge ci victoire. double moteur mi ngi jugee Rebeuss arbitre sifflé na pied gauche pied droite pied droit pour Feugeleu fausse garde Feugeleu andi garde double moteur normal pied gauche jugee Rebeuss jugee ci victoire moom tamit day ndeysaan booy xool Feugeleu ñaari combat yu mujj yëpp dafa jël ay espoir Jokal la jëloon. daan ko ñëwaat jël kii di double moteur bi nga xam dafa nekk si yoon nekk xale nekk tamit espoiru làmb espoiru rëbës Feugeuleu moo ñu wan ginnaaw nee na woon tey dinaa am lu ma wane Feugeuleu qui veut refaire son chemin delluwaat fa mu nekkoon ndaxte toll na ay jamono yoo xam ni dafa xawoon a doy waar waaye xale bu doy waar lay bëreel bu am ginnaaw rëbës nekk ci ginnaawam. mën a bëree xarañ loolu attention kan moo dàq bëre kan moo dàq xeex ñoom ñaar ku ne waxoon na ne sa morom maa la dàq bëre maa la dàq xeex mënëre bi di fëgala mu ne man damay bëre pour mënëre yi su ma taxawee xaar tuuti mënëre yi laa bëgg jox cër waaye man du man ak moom fëgala song na dóor na jàpp na jàppan dana nañu ay doole dana feeñ nag doole doole léegi attention eh la ilaha illallah fëgala yóbbuwoon nañ ko dañ ko wéyelee mu raam eh baax na daal ay waay ku nekk ñam nga sa morom léegi ñamante nañu ku nekk xam na léegi sa morom lu muy saf arbitre sifflé na waat bëre nañ ba génn géew bi fëgala moytul gone gi gone gi wane na boppam duul moteur wane na boppam xoolal duul moteur dafa gën a yokku ñaaw Double Moteur xool ko rek xool kanam gi wuy sama nday laa ilaaha illallaah waaye fëgg la dàq ko moom it de <laughs> samay ñaari copain lañ dama leen di kaañoo ay mbër lañu bu ñu takkoo dañuy takk ba ñàng maanaam takk yu bëri yeeg suuf si eh eh Double Moteur da ngay daw Double Moteur arrière na dafa jàpp baaraam bi dafa mel ni ki baaraam bi dafa eh Feugeuleu ma ngay door ma ngay xeex ak moom na xeex bi jaar yoon Feugeuleu door na gauche droite jàppante nañu Double Moteur nu mu demee noonu daa mel ni loxo bi dafay métti parce que buum bi mi ngi wàcc ci kanam gi morceau bi mu takkoon ci bopp bi mi ngi wàcc ci kanam gi wàcc na ko léegi daf ko doon chaîner Double Moteur Feugeuleu 19h46 minutes. defagum nañ 3 minutes de combat Double Moteur mi ngi ci saaku yi da mel ni fëgale day bañ mu génn jàpp na ko foofu tëj na ko ci flan yi jàpp na ñu ñoom ñaar round d'observation bi sànq jeex na ku nekk ñam nga sa morom fëgale door na génnaat na waaw buum yeeg ah musóor yeeg lépp a leen di gêné fëgale door na demaat na jàpp ko fëgale tegal combat bi si yoon. Feugeuleu dooraat na remise pour double moteur ah, jël na tànk ba nag Feugeuleu def nga erreur ah arbitre tas na combat bi lu xew. arbitre tas na combat ci kaw saaku yi double moteur dem na ardo Feugeuleu yóbbu na double moteur ardo ay eh waay moteur ba kule na moteur baa ngay kule moteur baa ngi kule huile baa ngi génn la ilaha illallah ah Double Moteur dem na ardo est-ce que lii mës naa am xoolal Double Moteur mi ngi laaj déggal fëgala mi ngi laaj ndox may leen ko ndox may leen ndox mu naan dafa xoox daa xoox xoox na e eh, fëgala ka am may la ndox mi ngi tekki téere yi mi ngi tekki téere yi mi ngi tekki téere yi mi ngi yebbeeku mi ngi tekki takkaay yi yi lay tekki takkaay yi lay tekki jaaro yeeg lam yeeg chaîne yi lépp lay tekki a ah, Modou Mbaye yi muy def affaire band yi fëgg la tekkeeku na fëgg la arbitre bi sifle waat na fëgg la moo ñu ancien wu double moteur la parce que boo ko jiitu ci làmb eh double moteur tekki na ay tiiram xoolal gaaw xoolal gaaw double moteur ak fëgala fëgala moo ñu wan ginnaaw ngemb bu rouge Seydina ma nga cawaat ñoom ñaar ñu ngi ku nekk garde ba nga woon moom nga andiwaat fëgala tàng nay joor ngemb moo rouge noir xaw ma man drapeau la boobu xëy na drapeau jaam ak gën la wala seen drapeau koñ double moteur ngemb bu jaune eh ngemb bu rouge moom couleur kii la couleur couleur rëbës la waaw double moteur jaune bi da nga ko waroon def xonk rouge blanc waaw muy rëbës xandaalu fëgg la mi ngi koy xoolaat di ko déglu double moteur tamit nee na tekk di ko déglu jaxasoo nañu sànq ku nekk xool sa moroom la mu andi ku ne peese nga sa morom daa mel ni neexoon nañu doole léegi nag bëri la bëri la laaj technique calcul tactique mental ak expérience. waaw parce que ñoom yaa ku nekk am nga expérience làmb fëgal a dóor na Double Moteur moo njëkk a dóor fëgal a peese na ko ëñ na ko bal ko peese ko mais xale bi demul dafa bëri doole xale bi jàpp na dëgg mbot mbotooy mbot mbot kuy jiitu kuy jiitu ñu ngi bëre bëre suuf war na ko ndomba quatre appuis quatre appuis fëgal def na quatre appi Double Moteur daan na par quatre appuis laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu sëgg ba tey ma ngi fa sëgg Yeah,